waliman amana wa aslama walam yastakbir di leen jottali ci ndigalam kàddu yi di kàddu yi ndokkeel ak sant ak ñaan ak soññee mi ngi ndokkeel al ummat al islaamiya gépp di ñaanal ñi ci ne ci aw tiis yàlla teggi leen ko ak fu ñu man di ne rawatina nag su bokk ya ca Falastiin ci weeru ngëneel bii di weeru mbaax di weeru ragal yàlla di weeru yërma yërmananteeg dimbalante te mu tolloog ama alfin wa arbain miatin wa xamsatin wa arbain atum junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak juróom gannaaw gàddaay gi ci gàttal fourteen forty five muy weer woo xam ne bokk na ci yi war ko musal la ci ñaari gàcce yi ak ñaari sawara yi gàcce gu àddinaak gu àllaaxira ak sawara wu àddinaak wu àllaaxira ni ko sëriñ bi waxe nafmu siyaami shahri fi daarayni yakfikumul aarayni wan naarayni kon maa ngi ndokkeel yépp ci turu sëriñ bi ci teru teg weer wi di ko jottulil cant yi mbokki taalibe yi rawatina kilifa yi ci pastéef yu dëggu yi ak taxawaay yu rafet yi di ñaanal ñépp yokk ak mucc ak ngërëm di soññee it ngir ñu gën a bàyyi xel weer wii yeesal ci pasteef yi yokk ci jëf yu baax yi waxuma wàññi ci waaye teet ci jëfi safaan yi di falte yi li sëriñ bi sëriñ bu mag bi waxoon ne koor nekkul bàyyi lekkat naan rekk cër yépp koy maase def fa sawmu an yasuuma kullu udwi an kulli ma yufdi fatan li sahwi te loolu dafa mel ne daa nettali rekk hadiis bay wax ne ku bàyyiwul wax waxi neen ak di ko jëf yàlla aajuwowul mu bàyyi lekkam ak naanam ku dul moom it yàlla aajuwowul daraam ndax lu waay yor rekk moo ko ko jox lim digle ki ko def lay jariñ ki ko deful mu wàññi ko lim tere ki ko bàyyi mooy mucc ki ko bàyyiwul lor moom daa sañe digle di digle rekk saña tere di tere topp ko jëriñu ko dara mooy ko wàññu ko dara aajoowul ak lekkam ak naanam mooy rekk mook ku la yamale du ko ci bindal tiyaaba man lam yadaa qawla zuuri wal amala bi fa laysa lillahi xaajatun an yadaa taamahu wa sharaaba julli yéeg asaka yéeg aj yépp noonu kem ni mu ko waxee ci tabaski yi ñuy def lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum lu waaye di def ci yii yépp na ànd ak ragal yàlla nu bañee fàtte it ne koor am na ñaari farata jenn ji mooy yéene woor ko ci guddi gu jëkk gi bala moo jeex te mooy fajar jot wenn yoon weer wi yépp nga boole ndoo yéene lépp benn yoon dana doy ak donte ne sopp nañ di ko yeesal guddi gune gu ñaareel gi ba ba muy jeex ñaareelu farata ji mooy ki woor tëye boppam ci lépp lu yàqu koor naan lekk jaxasoo ak yuñ mën a yéegal ci yooyu li tàmbalee fajar xar fajar ba jot so lan moo di son ak am na ci am na ñu ne mooy suquutu si shamsi taxtal ufuq maanaam nga nekk foo xam ne dara làqu la janoog jant bi di ko gis fa sa bët yam mu mel ne luy dugg ci biir suuf ba jeex tàkk walla bu dee géej mu mel ne luy dugg ci biir géej gi ñu ne bu loolu amee fa mu amee rek fa la bëccëg jeexe laylu ñëw na te alxuraan summa atimu siyaama ila layli la wax fii daay man mooy tolloog waxtu wi waa dëkk bi di dolli ñeenti minit soog a dog am ñu jàpp ne loolu rekk doyul laylu ñëw xañ na jege naa ñëw rekk waaye ñëwagul ndax mooy safaanu bëccëg te bëccëg mooy diirub jant bi na fi akuk leeram njëlbeen gi ak leeram di ko fi jiitu mujj ak leeram di ko fi mujj kon jëmm ji dem te leer gi wàññikuwul ba jeex tàkk du tax ñu mën a wax ne guddi ñëw na faaw la lëndëm am lu néew néew gannaaw suquutul xurs gannaaw bu jant bi duggee ci suuf si walla ci ndox mi lii wax kukk nu soog di mën a wax ne guddi agsi na am na ñu gisee noonu mukallaf nag sañ naa seet li ko doy dal xelam ci diineem mu ne ca loolu ku ne sañ na ko koor am na yit ñetti sunna dog gannaaw boo xamee ne jant bi sona yaa xam nag yow loo jàppee jant bi so ak yeex a xëdd tem jëkk fajar ak bàyyi lu amul njariñ ci wax ak ci jëf lum ci man di doon doon nekk rek luy indi tuyaaba nekki jàng alxuraan taxaw guddi addis ba nee na ku ko def ngir rekk gëm njéggal gi ci digge jàpp ne yàlla dana ko ko ci defal te bañ caa jublu ñu gis ko ci loolu bañ caa jublu ñu dégg ko ci loolu des na ko jéggal la jiitu ci bàkkaar bakkaar yu ndaw yi nag moo tax ñuy wax bakkaar yu mag yi moom tuub rek moo koy far tuub it day ànd ak yéena bañ caa dellu waaye tuubandi ba koor gi jàll rek du tuub du tax a far bakkaar bu mag ak doonte ne wormaal koor gi la te loolu lu baax la yàlla na yàlla dimbale ban màng ko cenam gën mate gën nee rafete ten fekk ko at yu bari tem dolli jàmm ak ndimbal suñ kilifa gi sëñ Muntaxa gan ko fi yàggal te mottali mbooleem sumb yi maa ngi yalwaan it ci biir ci béréb bu tedd bii bu yaakaaru bii ku fi ne ak ku sama kàddu egg ci moom ku manti doon muy ñaanal suñ mbokki jullit ya ca Palestine ak doonte ne lu war la ndax lu leen jullit mën a dimbalee rek war na koo def te ñaan benn jullit télewu ko yàlla xam nag ña ca yelloo nangul ak ñam cay nangul ak ñam dul nangul te yéex a gis natiijam ñaan li juddoo ci ñaan tekkiwul ne daa amul njariñ walla yàlla da nangu lii laa ne war naa ko ci dolli di jéggalu njuumte lu ci man di am waqad jàlla man laa yashu duma fàttee ndokkeel nag sama mbokki daara yépp ci bisub sëriñ Souhaïbou bii nu jëm di ko ci fàttaliku ak ñaanal yal na ko yàlla yàlla yal ko yàlla fayal ñépp manis naa wax ne bu amoon ñenn ñoo xam ne seeni jëf ak seenu mbaax may na leen bu jar kenn di leen ñaanal danaa mën a wax ne ca la bokk ndax léppam mi ngi ci diggante koor ak alxuraan mi ngi gane àddina ci koor gannaaw ba alxuraan wàccee ci koor dundam gépp mu jeexal ko ci jàng alxuraan ak jàngale ko génn àddina ci koor yal na ko yàlla gërëm te fayal ko ñi jaare ci loxoom ñépp ñu ngeen ji pay tem sàmmal nu ak njabootam defal nu ci lam ca bëggoon wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu